démb te conseil des ministre ci léeglekaay bi daal di xam ne nag daat nañuy tab lu toll ci juróom-ñett fukki doomi aadama ak benn le thème mooy yëglekaay ni ko système patriote bi kay ñu ngi koy doxal ndax président Diomaye Faye ma ngay teg ay ñoñam ginnaaw ay ŋàññ yu yàgg yoo xam ne rek ñu ngi koy ŋàññ jëmale ko ci wàllu nomination yi nag président Diomaye fay démb daal dinay amal ay nomination yoo xam ne rek da koo jagleel ay directeurs généraux ay président conseil d'administration ay DAGE yenn ministères yi laas quotidien daal di àddu jëmale nag ci nomination yooyu nga xam ne rek toll na ci juróom fukk ak benn yéenekaay bi ne Ousmane Sonko ma ngay distribuer ay sucette ñi nga xam ne rek ñoo di partisans mi ak sympathisants yi Vox li moom daal di xëyee ak mesure individuelle yi nga xam ne rek bàyyeekoo na démb ci président Bassirou Diomaye Faye yéenekaay bi ne moom jiitu réew mi ma ngay waddal ay bopp Cheikh Ahmadou Bamba Diagne nag jamono ji mooy secrétaire permanent bu COS-Petrogaz Mouhamed Ngouda Mboup di PCA bu port Outmane Diagne nag moom mooy PCA bu Fera journaliste bii di maam Gor Ngom nag ñu daal di koy tabb bu big ci gouvernement bi ca les élections nag magistrat bii di Birame Sène moo fa daal di wuutu kii di Jandeela Fall ca Prodac Cheikh Ahmadou Bamba Ngom mi nga xam ne rek ab agroéconomiste la nag moo fa remplacé ji moo soirée le soleil yëglekaay xëyee moom tey jii lu jëm ci wàllu logement yi wàllu loyer yi SICAP ak SNHLM lu jëm ci wàllu coowal suuf président de la république nag ma ngay teg ay fondation ci ab communiqué boo xam ne rek démb fësal nañu ko ci conseil des ministre bi ñu doon amal yéene kaay bi ne ña ngay boo xam ne rek dafa jëm ci yorinu pôle nga xam ne rek moo soxol tabaxub logement sociaux yi nag lu jëm ci renforcement yu SICAP ak SNHLM nag loolee lépp ñu ngi koy waajal jamono ji fexe ba yombal itam nag lu jëm ci jotin gi ñeel permis de construire yi nag loolee lépp njiitu réew mi ma ngay sàkku ci premier ministre ngir mu daal di amal ab conseil interministériel boo xam ne rek da koy jagleel wàllu logement administration yéglekaay bi ba tey dañu xamal ne nag fi mu toll nii juróom-ñett fukki poste ak benn daal di soppi ay kilifa lu jëmit ci wàllu déclaration politique générale élimaanu Sénégal jamono ji ngir amal ko ci assemblée nationale lii quotidien faylu ko ne fan ginnaaw bi ñu leen tabbee ci bopp réew Sénégal jamono ji nag yegsi nañu ngir soobu ci liggéey bi président Bassirou Diomaye Faye nag sàkku na ci premier ministre am Ousmane Sonko ngir mu jël matukaay yi war yépp nag ngir amal déclaration politique générale foofee ci assemblée nationale lu ñeel nag ñaareelu moom Diomaye Faye nag ma ngay xam ne ni loolee daañu ci ay rectification ay ajustement ak réforme yoo xam ne ak wàllu réduction des comptes sàkku na itam ci gouvernement bi nag ñu daal di taxawal ay stratégie de communication yoo xam ne rek dañu koy coordonné jaarale ko ci leeraange ak xarañteef les éco yëglekaay ne jomaay kay ma ngay fixé cap bi jëm ci wàllu second semestre waatum 2024 lépp nag mi ngi ko fas yéene jëmale ci wàllum rectification ajustement ak réduction des comptes lu jëm ci wàllu njëgu dund gi wàllum loyer bi ak logement social yi yéene bi ne président jomaay bëgg na ko accélérer jamono ji nag vox daal di àddu xam ne rek moo di accéléré bi nga xam ne rek bëgg na ko accéléré cadence bi ñeel second semestre bi nag président bi ma ngay xam ne daal nag pàcc bu am solo lay doon ci li nga xam ne rek moo soxal politique publique beeg réduction des comptes fi mu toll ni nag moom président li mu bëgg mooy amal ab programme boo xam ne rek dañu koy taxawal mu jëm ci rénové waat nag lu jëm ci développement logement sociaux yi nag muy àddu jëmale ci ab politique bu yees boo xam ne rek bëgg nañu koo amal ngir ñëpp mën a am ay dëkkuwaay fii ci réew Sénégal àddu jëmale ak Sud Quotidien yi nga xam xam ne rek moo soxol délai ñetti weer bi jëm ci wàllu déclaration politique générale yéene kaay bi nag ne premier ministre ma ngay amal ab prolongation ndax ci atum 2000 ak léegi nag juróom-benn chef de gouvernement képp nag ñoom ñoo daal di amal ab déclaration politique général ci ab délai trois mois boo xam ne rek moom la ñu leen appal article cinquante cinq bu constitution bi nag moom moo encadré règlement intérieur bu assemblée nationale Aminata Touré ak Amadou Ba Moustapha Niass la Idrissa Seck Hadjibou Soumaré Souleymane Ndéné Ndiaye bu dee ci élève Macky Sall yi nag Abdoul Mbaye la ak ndéem si bun Abdallah Dionne bés bi le jour ne lu jëm ci wàllu déclaration politique générale kay jamono ji nag président Diomaye Faye ma ngay accéléré Ousmane Sonko mayetu ko dara fi mu toll ni nag addu jëmalee ak beneen yëglekaay bu dellu soit ci révélation yi nga xam ne rek moo bàyyeekoo ci Cheikh Oumar Anne moom moomee nag ma ngay xam ne daal ni ñu ko doon manœuvrer rek laata élection présidentielle yi ci biir yëglekaay bii di Vox Populi nag ma ngay xam ne ne dañu koo dàq ci gouvernement bi ndax dafa taxawoon nag ngir jàppale kii nga xam ne rek moo Amadou Ba maire bu njum jamono ji nag ma ngay xam ne ni tekki na nombal tànkam ca biir APR nag fi mu toll nii nag a liggéey li nga xam ne moom moo yi nga xam ne rek wàcc na démb bi ne quartier yu bëree bëri jamono ji nag ñu ngi ci biir ndox mi ñaar ci ay tuutànk daal di ñàkk seen bakkan ginnaaw bi ñu labee ci biir ndox mi foofu foofee ca Kolda ak ci Ndakaaru Vox Populi ne ko ginnaaw taw yi nga xam ne rek jot naa wàcc ni ki démb nag fi mu toll nii askan wa yeewoo ci yenn quartier yu bëri ca Touba nag ne la watuñu ba yandoor tollu na ci téeméer ak juróom fukk ci ay kër yoo xam ne rek ndox mi dalee na nangu ca ngiraane nekk ca diggu Mbàkke fi mu toll nii nag askan wa dañoo jaaxle boo moytuwulee daa ñu ubbi l'école yi ngir dalal fa askan wi bu ñu sukkandikoo ci préfet bu diwaan ba jeexale yëglekaay ak sunu làmb ak bi nga xam ne rek war naa am ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet yéenekaay